asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi noo ngi leen di siyaar di leen nuyu di sàkku ci yen ñaan di leen ñaanal jàmm yàlla nañ fekkee màggal gi suba jàmm ñu ngi fii ci kër sëñ Mame Mor Mbacke mu sëriñ Modou Bousso Dieng moom sëriñ Fallou euh, sunu sëriñ sunu xarit sunu lépp di sunu bunt di sunu caabi di sunu lépp nekk ku oyof ku baax nekk ku sell nekk ku yiw nekk ku taaru ci jikko nekk ku tabe noo ngi fii <clears throat> di jox sunu di leen présenté sunu benn mbokk Bachirou Lo Bachirou Diaw sëñ Bachirou Diaw donc ko dong leen koy présenté mu sànni ci ay kaddu balaa nu leen jox sëñ bi kon ñu ngi leen siyaare baax sëñ bi sëñ sëñ sëñ Abdou ñu ngi lay saare bu baax ci wax jii nga wax ci sëñ bi ah, di wax ne nag sëñ bi moom day wax ne sëñ Fallou rek a fi nekk loolu sëñ Maamoor damay dégg mu naan sëñ Fallou rek a fi nekk kon li leen doxal ba indi leen fii ah, ci taxawaay bi nii rafetlu nañ ko lool yar na nanu sëñ Fallou jàppale ñun ñëpp ba ngeen àgg fépp foo xamante ne nii ab rajo àgg na fa wala ab télé kàttanu Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall ah, liñ ciy teg nag mooy li nga wax ci eh, sëñ Maamoor mi. ñun ñoo dëkk ak moom fay allié waaye xeebalut kenn yitteem eh, xeebut kenn xamewul taalibe bu góor bi xamewul bu jigéen bi xamewul mag xamewul ndaw xamewul kenn képp koo xamante ni am nga ay yitte ak yitte yu mën a doon su ko sëñ bi yëgee loola ma nga ca taxaw loolu loolu kenn ku nekk xam na ko ci moom kon loolu ñu ngi koy seeral bu baax ci kanam eh, sëñ bi nii nii xëy na nag wax gi nii sax eh, dañ cee lott lool waaye ñun moo ñu ci jox ndigal ñun lett nañ ci lool kon nag ñu ngi leen ci sant ci taxawaay bi bu baax di wax ne yan na suñ borom gën a barkeelal ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal ñu ñaan ñu yokk ñun ñëpp ba ko ci barkeb Serigne Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñoo ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant eh, ah ñun day baaxoo ñu wax sax waaye dañoo ñëw fekk fi sëñ bi mu ne ñu nañ ci barkeel waaw. Eh, te bis bi it yaakaar naa ne bis la boo xamante ne nii war nañ cee mën a barkeelu parce que day suñu bis waaw euh, li ñu li ñu mën a indi ci wax ci daal mooy suñu diggante ak sëñ Mamour parce que sëñ Mamour suñu mbokk la euh, man doomu nijaayam laa waaye suñu baay bu baax bi daf ñoo ba daf ñoo am lu ñu bàyyi lu ma bàyyi loon maanaam mooy suñu diggante ñun naar yi ak sëñ Fallou suñu yaakaar àdduna ak alaxira ndax daf ñu ne woon sëñ Mamour mii mooy mooy mooy mooy ñun suñu seede seede su seede suñu digganteeg Serigne Touba sëñ moor mii mooy seede bi waaw loolu daf ñu ko bàyyiloon moom mu nekk. ku ku ku ku fees place ci njullite ci ci maandu comme ni nga waxee léegi ci personnalité ci nite waaw loolu rek lañ ci mënoon a waaw di di ñaan yàlla yàlla ñu fi yàlla euh, teewale ay bés yu bari euh, ci barke sa ba ci barke maamam waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. Fadil Jili Mbacke xalifa Serigne Mouhamadul Moustapha Fadil mu yàgg lool wér lool. ba liggéey bu rëy bii mu toggoo ci biir kër sëñ Mouhamadou Moustapha Fallilou mu yàgg ko def te ñu ànd ko ak moom di ñaanal sunu kilifa gi toog itam sëriñ Maam Mor Mbacke moo sëriñ Modou Moustapha Fallilou moom sëñ Fallou mu yàgg lool te wér lool liggéey bi nag mi ngi nii eh, dafa am mbokk mu waxoon ne sëriñ Fallou lim am li ko ko may lépp ngërëm la ngërëm lu rëy rëy rëy lu mu amee ci woy juróom wa sëriñ bi sëriñ bi woo ko itam ne ko fii lii fi nekk dara mayewu ko lu dul liggéey am ngërëm du jur gi ma jur mooy tax nga am ko mu nekkoon jaay naa jureel gi jënde ko doon sab taalibe la ma ko ja la ma la ko jaayee njëggoo koy itam jëlaat naa ko defaat ko addiya te loolee mu wax moom la dund ba suñ borom defal ko muy senegal lépp lu soqi koo ci moom itam di senegal kon nag sëriñ Maam Mor dañ lay ñaanal liggéey bu rëy bii nga xam ne yaa ngi koy def ci taalibe yi yaa ngi koy def ci bokk yi yaa ngi koy def ci jaami yàlla yi suñ borom gën laa yàggal tañ yàgg ànd ak yow ci liggéey boobu ndax kat yow sëriñ bi tan xam lu woo kenn dëneer lu woo kenn woyefaloo yittey kenn kum mën a doon bu la waxee yitteem bala ngaa am jàmm yitteem daa saafara woo kum mën a doon bu la waxee soxlaam bala nga am soxla am daa saafarawoo kon nag ñoo ngi lay ñaanal nga gën a yàgg lool gën a wér ndax loolu sunu njariñ la barakatu Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ñoo ngi jiital ci kàddu yi kenn suñ borom tabaaraka wa taala di julli ci Mustafa alayhi salaatu wa salaam di sant si Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñaanal Serigne Muntaqa bu baax a baax a baax suñu borom gën a guddal fanam gën ko wéral. waaye lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa mu defe ko ni mu ko bëggee te ñaan ak moom waaye nag noonu la ñuy ñaanale sëñ Abul Baraka mu jiite kër Cheikh Mamadou Fadal suñu borom may ko wér ak gudd fan ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ Fallou mu defe ko ni mu ko bëggee te ñaan ak moom noonu la ñuy ñaanale sëriñ Jiiri Abdou Khadir xalifa Cheikh Moussa Mbacke Farilou ñaan suñu borom kàttanal ko wéral ko ba yéeneem ci sëriñ Mourou Moussa Farilou ci liggéeyal ko ci kër gi ak njaboot gi ak ak ci taalibe yi mu defee ko ni ñu ko bëggee te ñu ànd ak moom waaye noo ngi ziarit képp kuy dégg suñu kàddu ak ñi teew jataay bi yëpp bu ñu tuddee sëñ Abdou Diop sëñ Abdoulahi Ñang sëñ Birane Diop ak sëñ Basiirou Diaw sëñ Ibra sëñ sëñ Amari Gueye sëñ Amar ak sëñ Amsa ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar bu baax ndax xëy na kenn ku ci nekk li liñu liñu li li ñu séq rek moo la fi indi kon ñoo ngi leen santa di leen gërëm tey ñaan suñu borom def tawféex ci bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy suba di bisub sëriñ Fallou ñu yaakaar ci mu sëñ Fallou rek ndax lépp lu ñu ci defee dañ ko def ngir jëmmi sëñ Fallou def ko it ngir wut ci ngërëmu sëñ Fallou luñ ci sëñ Fallou fayet yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp noo ngi sant Cheikh Mamadou Bassirou bu baax sëñ Bassirou Sylla mi nga xam ne moo yor liggéey bi te di jàppale lii ngir wane ko ngir ñëpp teg seen bët di ko ñaan suñu borom kàttanal ko moom itam ndax ci biir kër gi la ndax lu mu am it sëñ saa Moussa Fall moo ko defal kon noo ngi di sant baax kenn ku ci nekk nag sa jikko nga ma seereel sa baax rek nga wax li nekk ci yow rek nga wax kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan képp koo xam daal teew nga fi ngir sëñ Fallou yal na sëñ bi defal lu kawe sëñ wat ci barke bi sëñ Fallou <coughs> sëñ Abdou Niang ñu ngi lay sant baax yow tamit ma nga jógee bu bëleel bi muy ñëwit lépp la àndal ay teraanga yu baree baree bari nag ak lépp lu lu lu muy demee rek da koo ëndaale ngir bis bi te noonu la ñëpp defit kenn ku ci nekk sa yéene nga am rek loolu nag yal yàlla di sottal lépp ñu ànd ko ci jàmm màggal ko ci jàmm te it jafe yi ci réew mi ak lépp lu ci nekk sëñ Fallou mën na koo saafara yal ko sëñ Fallou saafaral defal na kawe sëñ yor sëñ Abdou Diop bi ñu ngi lay sant bu baax ndax yow itam kenn ku ne xam na sa taxawaay ci bu ndax nii ma koy ni nga ko seeree noonu la nekk ci yow fee ñu nekk ci àll yi yaa fay chef de quartier teewut lu mën a doon rek lu fa nit ki rek nga ànd caag moom taxaw ci taxawaay bu rafet te it am am ci taxawaay boo xamante ni day jéggi dayoo sax nag li may waxee nag ndëkkandooy aali yi seere nañ ko ñëpp maase nañ ko seere kon sëñ Abdou ñu ngi lay sant baax yow tamit noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom defal tawfeex sama mm, ko ci bàyyi waale xel mm, ko koy nangul bu rafet rafet sëriñ Tuubaa lépp luñ fi def daal ngir jëmmi sëñ Fallu yàlla na ko sëñ Fallu nangu te furandi ko defal na ko fajuk aajo àdduna ak àllaaxira wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xol yi sedd nañ jërëjëf Mbacke Balla yàlla na nga fi yàgg lool ta ànd ak wér ndax boo fi yàggee te ànd wér incha allah sunu tey dana jag sunu suba dana jag ndax kuy bëgg a tayal rek da nga gisut sëñ Mamor ndax jotam moom yëpp nit ñi la ko jox moom amul yittey boppam da koy fàtte yitte mooy jamu yàlla ak yittey nit ñi. kon ku nite la